Euh, consommateur mu nekk euh, kuréel goo xam ne euh, kuréel gi ñaxtul askan wi ci seen dundin ak ci seen nekkin moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci wàllum actualité ci réew mi waaye rawatina njëg yi nga xam ne jamono ji yokk na ba ñu baree bare aussi di ko jàmbat ma Massokhna kan ñoo ngi dellu am mbégte invité wàll ci rajo réew mi FM. Euh, jërëjëf euh, Serigne Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi di nuyu askanu Sénégal di nuyu seeni auditeur euh, di leen massawu aussi ci coono yi parce que coono yi bari na comme ni nga ko waxee yaakaar naa ne li ñuy wax ci débat bi dana leeral yu bare te dana am njëriñ ci askan wi. ma soxna kan li waral invitation bi nag mooy dund gu métti gi njëg yokk yi. waaye dañuy commencer rek ci li nga xam ne mooy actualité ci réew mi démb ci àjjuma ji dañu gis ne euh, ci wàllum politique euh, kuréel gi nga xam ne mooy coalition Yewwi Askan Wi ñoom dañoo sàkk woon a amal rassemblement ci place de la nation bi ñu demee yëgal ko préfet bu Dakar préfet bu Dakar gàntal leen ko wax leen lu jëm ci wàllum trouble à l'ordre ak violation code électoral ñoom coalition Yewwi Askan Wi jàpp ne dañu leen xañ seen àq ak seen yelleef ñoom ñu ne danañu rassembler par force li am démb gis nga ko leader yu bari teg nañ leen loxo jàppante am na ci ndakaaru ak ci gox bi di Ziguinchor ba am ñett ñoo xam ne faatu nañ si euh, yow ma Massokhna Kane ban commentaire ngay def ci lii ma wax nii lépp. waaw d'abord damay méttit lu ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak blessé yi ci am. Euh, te euh, damay sant yàlla bi mu yemee foofu parce que mënoon na gën a grave parce que ñi ci rey ñi nga xam ni ñoo ci dee am na ci ñoo xam ne ay bal moo lañ leen tiire loolu nag defe naa ni laaj na enquête bu rëy parce que nu ñu defee ba tiire ay bal kenn xamul bal réel la wala yeneen arme yoo xam ni dafay mën a rey euh, loolu daf ñu jaaxal li ci des mooy lii mënoon naa ñàkk événement bi mënoon naa ñàkk bu fekkoon ni état euh, li ñuy wax interdiction de manifester euh, ëppalu ci état dafa yokk dafa dafa ëppal ci li muy tere manifestation manifestation pacifique euh, loolu kenn waru ko tere parce que constitution moo may droit citoyen mu amee lu ko naqari mu manifester ko manifester bi daf koy def ci ci ci wax def ko ci bind def ko ci jëf maanaam marche ak yooyu donc euh, comme euh, waa Yewwi Askan Wi nga wax ak waa Wallu ñoom ñoo dajaloo euh, defoon semaine bee passé ñu def benn man manifestation muy rassemblement bi itam ñu bëgg ko def am nañ droit def ko donc bu fekkee état def ni trouble risque de trouble à l'ordre public maanaam xëy na mu indi ordre public manifestation yépp moo am risque de trouble risque de trouble moom mënta ñàkk parce que comme ni ko terme bi waxee risque la maanaam lu mën a am la loo xam ni du ni forcément day am mais lu mën a am la donc bu ñu nee risque de trouble à l'ordre publique tax ñu tere. maanaam fépp fu rek. mën naa am voilà fépp fu nit di daje. Mhm. même ci kër euh, euh, pas ci kër parce que dootul nekk euh, ordre public mais ci ci biti ci mbedd moo xam lu mu munti doon stade ak fépp. am na toujours risque euh, risque de trouble risque de trouble boobu nag état daf koy analyser xool ndax risque bi mën na nekk xool ndax moom am na ay moyens yoo xam ne mën na fexe ba trouble public du am or li ñu seetlu mooy euh, bu fekkee ni ñii nii dañu doon euh, manifester dañ ko njëkkoon def mu am trouble la état mën na nii risque de trouble mais comme defoon nañ ko semaine bee bii ñu bëgg ko defaat te benn coow amu ci woon wax dëgg yàlla waroon nañ leen bàyyi bu fekkee ci critère boobu la bu fekkee état dafa wax ni amul moyen pour euh, mën a encadrer pour mën a fexe ba euh, trouble à l'ordre public du am état li mu wanee ci moyen pour tere leen ñoom ñu def seen rassemblement loolu ëpp na sax moyens yu ordinaire yoo xam ne dañ koy def parce que police génn gendarmerie génn moyens yëpp génn na. Ah, dëkk bi dafa fees dell ak ay. buñ ko autorisé woon. Euh, du soxla moyens yi ñu génne yëpp. ah démb. yi ñu génne yëpp du ko soxla. Ah, parce que bañ ko autorisé semaine passée moyens yi ñu génne dayul nii ñu génne euh, démb. gën a yomb. donc autoriser bi moo gën a yomb te moo gën a jaadu te moom la yoon gën a nangu. waaw donc euh, ñun dañuy wax ni état moom moo trouble bi am mën nañ ni état moo ko provoqué parce que bu fekkoon ni terewul woon ñoo xam ne ñi li ñuy li nga xam moom la ñuy xeex ñun gis nañ seeni droit li nga xam ne moom lañ ni mooy seen droit moom la ñuy revendiquer ci affaire élection yi dañ ci war a sotti ndox bu sedd dañu war a fexe ba du indi jéyi ci réew mi te mën na nekk loolu nag question njiit ñi la ñi nga xam ñoo jiite réew mi am responsabilité wu jàmm am avant tout ñooñu ñoom ñoo war a euh, xool naka la ñuy doxalee affaire bi bu fekkee ni dañu ni élection dafa am ñu dàq ay liste ñi nga xam ne kàngam yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo nekkoon ci opposition bi ñu tere leen ko avant loolu ñu tere fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñun dañu gëm ni loolu dafay faussé maanaam day day yàq euh, li ñuy wax équilibre démocratique maanaam ñëpp am yem ay yelleef euh, te euh, fi ñu ko wekk pour ñun vraiment taxawul affaire u parrainage affaire kii ëppal na benn kii toppul góor toppul jigéen mais yooyu dañ la war a jox dañ la war a jox euh, délai pour nga corriger li nga war a corriger bu juum amee parce que erreur na fait pas compte maanaam njuumte kenn du la ci condamné lu nit tey def ko moom la ñu mais njuumte kenn du ci condamné nit bu fekkee kii dafa juum ci ay listam nga ne ko ah yow kat juum nga fii ak fii demal nga corriger ko may naa la ñetti fan ci ñetti fan yooyu bu ko corriger listam mu jàll bu ko corrigé wul nga xam ni kii kat malgré ko jox nga ko délai corrigé wu ko bu boobaa mën nga sanctionné mais affaire parenage dañ ko war a seetaat parce que même CEDEAO d'accordul ci loolu te euh, dafa am loo xam ne dafa tax nit ñi xalaat ko mooy ni ko dafa am yeneen pexe yu lalu ci ginnaaw mais en tout cas lii ñu gisagum euh, en tant que juriste ñun dañu gis ni dafay gàllankoor démocratie dafay tere ñoo xam ni dañu am droit wu présenté wu ci poste député ñu tere leen ko te fi ñu ko wékk vraiment euh, amul démocratie waaw maître Massokhna Kane euh, déglu nga waa coalition Yewwi Askan Wi li tax ñu rejeté seen liste titulaire bi bàyyi seen liste suppléant dégg nga tamit benn Benno Bokk Yaakaar ñu rejeté seen suppléant yi daal di retenir seen titulaire yi lu mel noonu titulaire yi mooy dem fii fii suppléant yi est-ce que loolu yow jàpp nga ne Euh, juridiquement lu jaar yoon la. waaw man ci sama gis-gis bu gàtt pour man loolu ñu def jaaduwul jaaduwul mënuloo ni liste liste la liste dafa am liste benn la mën a doon am ay titulaire ak ay suppléant ñaar yooyu bu ñu boolee ñaar yi mooy doon liste mais kenn du ne euh, liste à part euh, titulaire liste à part suppléant parce que benn mënu cee dem bàyyi moroomam titulaire foog mu am suppléant suppléant mënta am tant que titulaire amul mais buñ ne yow dañu éliminer sa liste titulaire mu des suppléant alors que suppléant seen seen fonction li leen tax a jóg mooy remplacer kii bu fekkee am na koo xam ne ki manqué na waaw ka war a kañu ka ñu war a seet ndax dafa manqué wala manqué wul bu fekkee moom existé wul yow dootoo titulaire dootoo dootoo suppléant parce que dangay ngay suppléer ñi ne foofu ci liste bi donc euh, giseen boobu pour ñun euh, c'est pas juridique jaaduwul te muñ ci wékkandikoo pour dàq ay nit et avant loolu ñu dàq ay nit ñoo xam ne ñi yeneen liste yoo xam ni njëkk nañ leen dàq wékku ko ci euh, maanaam kii dafa ëppal nangam nag mais yow boo ma laajee junni pare man ma fexe ba am ñaari junni wala ñetti junni ko kay day wane ni man matal naa ba wis donc kenn warul sanctionner nit ci ëppal sa liste ëppal na amul sens bu fekkoon dañ ni manqué na sax à rigueur mën nañ comprendre manqué ñun la ah demal mortali may nañ la ñetti fan boo mootalee xayrun boo mootilul ñu kii la affaire doublon mën nañ ko comprendre mais ëppal ëppal nga yow laaj nga ma téeméer man ma indi junni mu ngi mel ni boo boo doon jox sa dépense euh, jabar sa jabar laaj la euh, téeméer pour dem marché nga jox ko junni mataloo dépense est-ce que est-ce que war nañ xuloo yow ci loolu. da ngaa ëppal dépense. waaw ëppal ci sanctionné nit. <laughs> donc yooyu ay caaxaan la. ñun dañu gëm ni loolu day affaiblir démocratie te day indi danger ci réew. moo indi trouble yi yépp mais kan ngay jox xar bi baaraamu tuuma euh, kooku euh, conseil euh, conseil constitutionnel wala ministère de l'intérieur bi nga xam ne moo war a organiser élection yi dénk ko direction générale des élections kan nga si joxar bi baaraamu tuuma. waaw d' abord euh, ministère de l' intérieur parce que ministère de l' intérieur arrêté bi mu jël wax dëgg yàlla ñun juriste yi gis nañ ni euh, affaire bi euh, baaxul bon ensuite donc njuumte am na foofu mais aussi conseil euh, constitutionnel ñun dañu gëm en tant que juriste que ni njuumte am na foofu waaye nag nit mooy juum il faut ñu reconnaître leen le droit à l' erreur. fan nga jàpp ne fa la ministère de l' intérieur juumee ci arrêté bi ak conseil constitutionnel fan nga jàppee ne dañ faa juum. waaw man règle yi mu teg pour éliminer ay nit foo xam ne fi ñoo xam ni constitution moo leen may droit ñu présenté code électoral moo leen may droit ñu présenter naka la ministre bi même bu fekkee ni code électoral loi bi daf ko jox compétence pour mu définir ay règles mënut a définir ay règles de sélection yoo xam ni day day day euh, violer règle constitutionnelle. wala règle légale donc ñoom critères yi ñu jël loolu bu fekkee ni ci loolu lañ sukkandiku pour éliminer ay nit amuñu droit ci loolu. Mm-hmm. te ci lañ sukkandiku pour éliminer ay liste. léegi léegi arrêté bi kañ la arrêté euh, manoon na dindi lu con lu constitution bi teg. arrêté mënu ko dindi parce que euh, loi dafa am ay niveau dafa am ay euh, niveau ay étage arrêté ministre moo koy jël. loi assemblée nationale moo koy jël constitution assemblée bu koy jël majorité bi mu war a am majorité bu bu bu diis la bu confortable la ci lay jël li ñuy wax loi constitutionnelle donc loi constitutionnelle boobu déjà moo ëpp doole loi loi moo ëpp doole arrêté parce que arrêté ministre moo koy jël donc acte de gouvernement la. donc kon loolu ministre bi def c'est pas normal. non non c'est pas normal et ministre bi sax man pour man. kenn waratu ko jox affaire élection parce que ministre boo xam ne da nga far déjà ca départ ba wax dëgg yàlla mënoon nañu benn organisme boo xam bi euh, dafay am autonomie comme bu njëkk ni mu amee woon même bu fekkee euh, détachement wu ministère bi la te waru nekk sax détachement militaire dañu war a def comme yeneen réew yi gis nañ yeneen réew yi comme beneeg yooyu dañuy am benn organe autonome comme ni euh, commission Sénat di mel ak yu organe autonome boo xam ne amuñu benn couleur politique mais ministre boo xam ne bi yow danga bokk ci parti di défendre parti boobu ba pare ñu bëgg nga nekk arbitre kooku du sotti. léegi mais président bi nga xam ne tey moo fi teg euh, ministère boobu moom soo ko waxee ne ko jël élection yi nga dénk ko kuréel boo xam ne bu neutre lay doon booy wax sax danaan la bul yeggale du ma ko def. waaw président euh, dafa am njuumte yu bari yoo xam ni daf koy def te njuumte bu ëppee rek day leneen. parce que président fekke na lu bare. njuumte la wala na lu bare mën nga tuddee la neex mais daal njuumte bu ëppee dootul doon njuumte te dafa mel ni ñun ci suñu gis-gis ak expérience bi ñu am ci politique parce que yàgg nañu politique ñun ak moom ñoo doon politique ba ñun ñu génn ci politique di toppatoo leneen euh, moom yàgg na ci fekke na lépp lu ne gis na ko fi donc bu fekkee dafay def li di ci persister ñun li ñuy wax mooy. xam xaw ma ñan ñoo koy conseillé xaw ma ñan ñoo koy digal mais ñi koy dugal ñun dañu gëm ni la góor ga daan wax ñi lay dugal ñi lay digal dañ lay dugal il faut qu'il fasse très attention président parce que euh, nga jël ay mesures yoo xam ni xëy na say conseils ñoo la ci pousse xëy na am nga ci ñi la wër ñoo xam ni ñoom la ñu woowee kooku am na ci pouvoir yëpp am faucon ak ñoo xam ni ay colombe la ñu maanaam nañuy déglu nañuy déglu askan wi nañuy xool li nga xam ne euh, ñi leen ñemee wax dëgg parce que buur nga wax ko dëgg il faut nga indépendant il faut nga gëm yàlla xëy na am na ñoo xam dañ koy wax rek li ko neex mais il faut ñu def très attention parce que décision yi muy jël di ci persister du ci dellu gannaaw te dellu juum dellu gannaaw loolu euh, nit ku am euh, nit ku am noblesse nit ku am grandeur mooy nangu ni ah fii kat juum naa damay rectifier Ablaye daan na ko def Ablaye nit ñi nañ daan xalaat ni il était mais ñun ñi nga xam ni ab xam nañ Ablaye daan nekk ak moom bu daan def yenn yi bala koy def day consulter ñëpp. daf daf ñuy dajale ñu ñëpp consulter ñëpp ku nekk mu dégg sa xalaat waaw bu fekkee nag dafa bëgg a def loo xam ne lii bëggul. nit ñi kii ko il nous met devant fait accompli des fois yenn décisions yi bu ko daan jël il nous mettait devant fait accompli mais amoon na ci suñu groupe ñu mel ni euh, man wala Aminata Tall wala ñu mel noonu xam ne dañ daan ko wax ah góor gi ñun daal pour ñun da ngaa juum même bu ñu dee mere sax ah, même bu ñu dee mere pendant quelque jours la ñu mel noonu mais ñun on osait lui diir président lii erreur la alors que am na ñoo xam yi ils étaient là-bas ma tudd seen tour mais ñoo xam ne ñi li ko neex rek lañ lañ ko doon wax. Ah, donc kon yow da nga jàpp ne Macky lu ko neex rek lay dégg. Euh, lu ci bare bokk parce que erreur yi muy def ni mu répété woo te erreur yu flagrante la yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, se contraire à à la logique. Ah. te du jur jàmm aussi. d'accord mais ma Massokhna kan yaa ngi wax euh, erreur mais ñenn ci kujje gi. yu su mel ni ñoom Ousmane Sonko Barthélémy Dias Khalifa Sall. ñoom ci seen i déclaration dañu gis ne Macky Sall président Macky Sall ak ñi mu àndal dañ leen di xoqatal dañ leen di jaay doole. waaw loolu loolu seen gis-gis la ak seen opinion am nañ ci droit euh, mais ñu li ñu ñaan ñëpp rek mooy nañu dal nañu dal nañu bañ a yee fitna et des deux de deux nag des de côtés de deux côtés am na ay yu ñuy dégg ay déclaration yu ñuy dégg yoo xam ni vraiment euh, baaxul warul nekk. d'accord euh, donc loolu bu ñu leen di conseiller conseil yu biir nekk dañu leen di wax aussi li nga xam ne loolu lañ yaakaar ni ñoom war ñu ko def. mais tey par exemple tey opposition bi dañoo ñoom dañu jàpp ne euh, Macky Sall xamul négociation xamul waxtaan rapport de force rek la xam. waaw loolu loolu président moom moo war a euh, dalal seen xel ci loolu moom moo war a teg ay actes yoo xam ni ñoom dootuñu gëm ni. rapport de force rek la am il faut que mu am capacité de négociation mm-hmm. Abdoulaye Wade bu mas yëf yi masaan tàng diggante mag Abdou Diouf lu mu tàng tàng tàng dañuy mujj a arrière euh, négocier te loolu euh, am na kenn koo xam ne kii maa ngi rappelé wu rôle bu mag la ci doon joué muy Madické Niang Madické Niang à l'époque bokkul woon ci benn partie mais moo doon def médiation diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade moo daan wër di dox di dem ci kii wax dem ci kii wax euh, d'ailleurs ñu mel ni ma Madické ñooñu war nañ jógaat yoo xam ne ñu bokkuñu ci benn parti euh, jóg euh, di wax ci dëkk bi waa patronat aussi war nañ ci wax ñoom itam war nañ bokk ci médiation bi ñoo xam ne dëkk bi bu tàkkee ñëpp lay yàqal ñooñu waruñu xaar comme ni ñuy wax doo xaar ba fitna jóg ngay jéem a wut solution mais da ngay prévenir fitna da ngay fexe ba bu mu am donc ci loolu la woo. Euh, yenn kilifa yi xam ni ils sont euh, am nañ indépendance bu day ni ñoom mën nañu wax ak kii wax ak kii te dañuy wax seen diggante ak yàlla. waaw mais maître ma soxna mais dafa bëri sénégalais yoo xam ne ñoom ci seen gis-gis mooy euh, Macky Sall si boppam moom dafa nangu wut a am adversaire loolu sénégalais yu bari seen gis-gis loolu leen di jox yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. sénégalais yooyu kenn mënul wax kenn mënul leen jox toor parce que acte yi ñuy posé toujours quand il s'agit de sélectionner des adversaires dafa mel ni loolu sénégalais yi nga wax ni sénégalais loolu lañ jàpp loolu dafa mel ni acte yi ñuy posé daf koy dëggal parce que ni ñuy éliminer ay candidats moo xam ci joŋante yëpp nag ni ñuy éliminer candidats yi jaaduwul critères yi ñuy avancé te itam toujours conseil constitutionnel dañuy gis ni dañuy valider loolu ñun dañ koy métti parce que euh, li Abdou Diouf doon wax làmb jàngoog euh, ku euh, jàkk jàngoo ku mën nodd je pense que loolu la ñu war a doxal sénégalais bu nekk am nga droit taxaw yëkkati sa loxo ni man dama bëgg a nekk président wala dama bëgg a nekk député wala ko kenn warul ko gàntal tant que tu remplis les conditions moralité ak dignité kenn warul ko gàntal dañ la war a bàyyi nga dem compétition parce que ci compétition bu normal bu loyal ci la ñuy mën a xam quels sont les meilleurs ñun Sénégal meilleurs yooyu la soxla moo tax ñu bëgg compétition bu loyale bu leer boo xam ni peuple bi moo koy arbitré. Hmm. jërëjëf euh, ma Massokhna Kane ñu dellu si ci li nga xam ne tey moo xewoon démb ci Dakar euh, ak ci Ziguinchor mooy mars mooy euh, rassemblement bi yeeyu bëggoon a amal ñu gàntal leen ko mais démb bu paasee ñi si faatu ñuy jaal seeni mbokk waaye est-ce que jàppoo ne am na ay perte économique maanaam économiquement parlant tey ndax gisoo ne Sénégal perte na si ndax démb bëri na ñoo xam ne euh, xayuñu bëri na marché yoo xamante ni ak événement tabaski bi liggéeyuñu yow en tant que ku jiite benn kuréel SOS consommateur ban xayma ngay def foofu. waaw euh, trouble yi bi mu commencé avant muy commencé sax ñu bari tëj nañu ñi tëj nañu seen commerce ñi tëj nañu seeni bureau man mi sama bopp suma personnel midi laa leen libéré ñu bi parce que ñu ngi doon ragal ay trouble yoo xam ni dana yàq te itam am na commencé yu yàqu euh, dégg naa am na station yu ñu saccagé yu mel noonu jël la fa ne woon loolu nag heureusement amul amplitude amul euh, dayul amul dayoo bu day ni 8 mars ba le passé te mënoon na fa àgg parce que bu ñu commencé di rey nit bu ñu commencé di blessé ay nit bu ñu commencé di sànni ay lacrymogène nit ñi di jël ay xeer di leen ko delloo di leen sànni ay kii ainsi de suite di taal ay pneu looloo fi amoon ba indi fii ñu dugg ci magasin yu bari kaase ko te bu boobaa ñëpp ciy profité euh, woy yi dañ ciy profité ñëpp dañ ciy profité parce que dafay nekk situation euh, insurrectionnelle situation de trouble donc <clears throat> te loolu état moom moo war a fexe ba loolu du am état bu nangu nanguloon ñii seeni yelleef ak seen kii warigar def naa yëf yi du agsi fi donc li ñuy ñaan état mooy mu dellu ginnaaw parce que dellu ginnaaw ci bu fekkee ni problème am na loolu li ñuy wax sax euh, dawul dañu wuti doole ñoom déjà wane nañu force physique mais malgré sax déploiement yi ñu def def. grenade yi ñu prévention bu day ni euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo waroon dem ca place ba ñu tëj leen seen kër tere leen ñu ñu génn. tere leen sax ñu julli ci juma loolu dafa grave bu fekkoon ni loolu amul woon bu fekkoon ni defuñu woon loolu prévention boobu xam ne euh, coin névralgique yëpp dañ ko dañ ko kii tere nit ñi ñu accéder et malgré sax am na ay manifestations donc bu dul woon loolu xëy na dégâts yi dana gën a bari te loolu ay perte ay milliards ay milliards yu dul jeex la te loolu li ko waral rek mooy lenn ñii bëgg nañu exercer benn droit boo xam ne yoon moo leen ko may. maanaam rassemblé wu euh, def seeni déclaration bi mel noonu comme nañ ko defoon semaine bee passé ñu tere leen ko génne force publique bi suba teel ba ci ngoon gi loolu loolu dafa doy loolu. kon yow da gis ne opposition bi ñoo nekk seen dëgg. ñoo nekk seen dëgg ci ni li ñuy kaas. droit yi nga xam ne ñu ngi koy revendiquer. Mhm. ñoom ñoo nekk ci seen dëgg. parce que yoon moo leen ko may. d'accord maintenant kenn amul droit nag saccager. wala yàq yi fi jàmbur. d'accord te loolu du ay militant euh, yoo xam ni kii na parce que dañu leen tëj ci seen kër yi. léegi responsable yi dañu leen tëj ci kër. léegi léegi tëj seen kër googu. déjà tëj boobu amuñu woon droit. d'accord léegi ku si mel ni tey euh, Ousmane Sonko moom dafa mel ni sax dañ ko def résidence surveillée mook Barthélémy Diaz Ahmed Aïdara ñu jàppee ko Guédiawaye mais li nga xamante ni moo jaaxal ñu bari dañu ne comme ñoom place de la nation fa la ñu war a fa la ñu war a seen point de départ wala seen rassemblement. est-ce que jàppoo woon ne état bi dafa waroon a déployer rek ay éléments am de place de la nation mais dem ba yow fi nga dëkk ñu ne la doo fi génn te yow demoo waxoo sax fële laa jëm xëy suba teel ñu ne la doo génn loolu tamit euh, noo koy qualifier waaw oh, loolu violation wu liberté nit ñi la maanaam c'est liberté de d'aller et venir loolu gàllankoor la boo xam ne yoon nangoo ko te ñoom def nañ ko parce que comme ni nga wax place ba nga xam ne fa la ñu waroon rassembler foofu ñoom foofu la ñu waroon dem sécuriser foofu quadriller ko xëy na tere ko fa ak accéder loolu ñoom ba tey def nañ ko mais kanta fekk nit ci këram ci goxam ci koñam fekk ko ba ci këram baare këram mënta génn mënta dem fenn loolu jaaduwul loolu tooñ la te damay saluer euh, sérénité euh, ak responsabilité bu Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee parce que wax dëgg yàlla euh, neex deret la def moo tax coow amul defe naa ne force de sécurité ya fa newoon sax xam nañ ni kii nitu jàmm la te jàmm la doon woote donc loolu ñu ngi koy saluer ñu ngi ñaan responsable yëpp ñu def ni moom mais aussi buñ leen provoqué te provoqué leen mooy dem seen kër baare seen kër ni leen du ngeen génn loolu loolu loolu xel mënu ko nangu c'est-à-dire même bu fekkee ni yow au titre da nga ni damay def prévention damay def prévention maanaam dama bëgg euh, jël ay dispositions balaa coow di am mais amuloo droit dem nit tëj ko ci këram séquestration la loolu séquestrer nit ci këram la jaaduwul. Mm-hmm. xam nañ sax ñu ne la boo bon boo génnee ci mbedd mi kat dañ lay topp ba xam ndax dangay dem ca place ba wala déet. Mm-hmm. développer seeni stratégie parce que am nañ ko yoo xam dañuy nekk ci ca wetu kër ga boo génnee ñu topp la boo naree dem ca place ba ñu ñu ñu baare la te la la nga àgg ca place ba. ñoo xam lu ñuy def mais tëj la ci sa biir kër ni la doo gën hmm. séquestration la. waaw loolu bu incendie amoon ci kër ga nag ba kii doomam war a jàngi jabaram war ko yóbbu ñu di ko gàllankoor ba il a fallu que mu ñëw négocier ak ñoom pour ñu ñu ñu bàyyi ko mu mu mu dem xale bi dem jàngi loolu dafay traumatisme dafay traumatiser sax xale yi. loolu dañ ko war a bàyyi loolu baaxul. léegi euh, ma soxna Kane image Sénégal dans tout sax ci bitim réew. te président Macky Sall moo jiite Union africaine ñu gis ko muy dem ci ay Russie yu demee noonu léegi image u Sénégal fi ñu toll nii euh, loo si xalaat. waaw li ma mën a wax mooy am na lu ñuy wax bu bon point ak mauvais point bon point yi mooy euh, li mu dem Russie dem waxtaan yi ak Poutine euh, et cetera au nom de l'Afrique loolu dañ koy rafet parce que lu baax la maintenant. ah booy dem fay lakku jàmbur day fekk sa kër amul lakk mais sa kër sa dëkk am ay problème yu grave nii ay problème de démocratie yu grave nii yow da nga war a góorgóorlu jéem ko fay na ngay demee di wollu ji guerre bu am à l'étranger di dem di wax ak ñay xeex mais réglal sa xeexu euh, dëkk réglal sa problème mu kër ci affaire sécurité affaire paix affaire stabilité te loolu li koy indi mooy ñi nga xam ne seen yelleef ñu ngi koy kii nga nga reconnaître leen ko loolu c'est une question de responsabilité et de noblesse c'est une question de grandeur ci loolu la ñuy woo président na def acte de grandeur bàyyi ñi bëgg a manifester ñu manifester ñu encadrer leen coow du am histoire du am dara du am loolu mën na nekk mais lii coow lii bëgg a taal wax nañ fi affaire terroriste lu nekk ñu ngi ko fi wax te loolu yépp taal daay la rek affaire terroriste bi wax bay bay menacer nit ñi parce que menace voilée d'ailleurs ñëpp wax nañ ko euh, euh, lii raam ci ñag bi la jëm li ñuy wax ay affaire menace terroriste moi j'étais très étonné en tant que juriste en tant qu'avocat bi ma déggee procureur li mu développé ci détail yépp procureur dafa war a situation yu mel noonu comme ni mu ko waxee war na informer population yi information boo xam dañu dugg dans les détails wax carrière waa ji wax fi mu jaar wax li mu doonoon ainsi de suite euh, développer mais c'est c'est incroyable moi j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ni ici au Sénégal ni à l'étranger procureur boo xam day dugg dans les détails di wax yu kii dañ ko kii nii nangam nangam kii mais loolu yëpp pour lan banaan tëkk tëkku nañ danañ seet ñi nga xam ne euh, bokk nañ ci de près ou de loin ak kuñ ci mënti doon nangam nangam danañ la jàpp danañ ko jëflante ak yow mais loolu man gaw ma ni loolu mooy communication wu parquet gaw ma ni loolu mooy communication wu procureur loolu xoqatal la peut-être préparé ay affaire la moo tax euh, opposition ñeneen ñi bi ñu ko joxoñee euh, baaraam wax ni ah kii dafa am lu muy préparé benn logique bi la rek Ousmane Sonko la ñuy bëgg a taqal moom ñeneen ñi mel ni moom nangam nangam mais nit ñi dañ koy gëm loolu bu ñu ko waxee nit ñi dañ koy gëm parce que ils ont pointé du doigt euh, d'autres responsables même bu ñu ko waxul nii. ouvertement nit ñi loolu lañu comprendre te loolu warta am fii Sénégal loolu warta am fii Sénégal dinañu bàyyi loolu loolu taal daay la loolu xamb la. d'accord voilà léegi euh, maître Massokhna Kane euh, yow la ñu invité tey ci rajo réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi mais fan yii tamit dañu gis ne pouvoir bi ak ministre yu baree baree bari ñaari baatu yu ñu wax ñetteel ba indi baatu rebelle mu mel ni xaw naa choqué aussi. Euh, ku ci mel Ousmane Sonko ak ñenn ñi nga xam ne tey ñoo dëkk ci ci sud bi baatu rebelle boobu ñu ngi faral di wax euh, est-ce que mënta indi instabilité ci Sénégal. Euh, man li ma gis te mag laa maa fi bugg yàgg li ma gis mooy li ñu wax ni wax ni rebelle yi ñoom ñoo bugg a ñëw fii Dakar loolu wax ju garaaw la te gis naa réaction wu certaines personne il faut pas que ñu indi fitna ci réew mi rebelles yi ils sont sur un territoire boo xam ne ñoom dañ koy ma masuñu génn foofu masuñu ko paase foofu lañu ñu nekk li lay war a sul bu ñu wax ni rebelles yi ñëw nañu Ndakaaru wala ñëw nañ Thiès wala ñëw nañu feneen nañu leen bàyyi fa ñu nekk négocier ak ñoom waxtaan ak ñoom wut jàmm mais bu ñu leen accuser yi ba ñu mer ci loolu Euh, mën na indi ay développement yoo xam du baax ci réew mi mën nañu ñoom loolu mën na leen naqari te defe naa am na ñoo xam ñu ngi commencé naqarlu loolu wax jooju wax ju rëy la même loolu bu doon dëgg sax procureur gëm naa ni waru ko wax yooyu ci information yi nga xam dañ ko war a garder secret di ci enquête loolu lañ ci war a def mais kenn waruloon jéem a lié affaire boobu même bu fekkoon amoon na ay rebelle yu ñëw fii Ndakaaru dafa waroon nekk information sensible dafa waroon nekk comme genre secret défense loolu dañ ko war a denc ñoom di ci enquête mais waruñu ko rendre publique di ci joxoñ ay nit ba naan walla danañ seet képp ku ci bokk de près ou de loin nangam nangam loolu erreur bu rëy la te dañ leen di wax ñu bàyyi affaire yooyu wax yooyu nañ ko bàyyi. d'accord jërëjëf ma soxna kan léegi fan yi passé euh, ci euh, ci Ghana euh, fukki réew ak juróom yi nga xam ne ñoo bokk ci CEDEAO. ñoom dañu defaloon benn protocole wax ne limitation mandat la ñu bëgg mu am si réew yi bokk ci CEDEAO maanaam président bu nekk ñaari mandat moom ngay def waaye ñoom seen protocole boobu bi ñu waxee 15 pays yépp ñëw leen signé réew mu mel ni Sénégal ak Côte d'Ivoire ak Togo ñoom signé wuñ ko wala dañu signé sous réserve loolu ñenn ñi gis ne loolu dafay firndeel ne euh, président Macky Sall dafa bëgg a def euh, dafa bëgg a samp beneen candidature am yow lan moo ci sa xalaat. Euh, li ma ci xalaat malheureusement du xalaat bu neex parce que Sénégal loolu mu def dafa déshonoré Sénégal. Ah waaw parce que man nekkoon naa ministre de l'intégration africaine pendant trois ans xam naa structure yooyu nu muy fonctionner yàgg naa ci dem. yàgg naa diriger ay délégations ministérielles et même des délégations présidentielles parce que man maa doon remplacer président Diouf pendant trois ans euh, euh, ci yenn sommet yi xam ni mënu ci woon dem donc xam naa affaire bi muy fonctionner Sénégal a toujours été parmi les meilleurs élèves de la CEDEAO et de moi Sénégal pour ne pas dire c'était le meilleur élève c'était parmi les meilleurs élèves je ne peux pas comprendre et maa ngi féliciter euh, le professeur Dieye bi nga xam ne moom moo alerte nit ñi ci loolu c'est extrêmement grave que Sénégal xam ni ci suñu biir constitution ci la ñu defee déjà limitation mandat bi Sénégal dem CEDEAO xam ne ay règles communautaire la ñuy teg yoo xam ne c'est applicable dans toute la sous-région dans toute la communauté Sénégal di def ay réserves waxuma la ëpp mais réserve parce que réserve bu amee ça veut dire que euh, texte bi du passé parce que il suffit que am benn état bu contre parce que unanimité la ñuy la ñuy la marché bu fekkee ni am na benn état boo xam d'accordul affaire bi du jàll au niveau des chefs d'état ñun yàgg nañu bloqué ay réunions yu mel noonu yàgg nañ ko bloqué ci au niveau de la CEDEAO yoo xam ni président yi bu ñëwee dañ koy valider alors donc loolu dafa dafa yàq xelu nit ñi ci affaire troisième mandat les gens ont le droit de dire est-ce que Sénégal ñi ko jiite actuellement wutuñu troisième mandat bëgguñu troisième mandat naka la Sénégal même bu doon gént sax même bu doon gént Sénégal warul def ay réserve ci lu mel noonu même bu fekkoon ni ministre bi te ministre bi ñemewul def loo xam ne sant ñu ko ministre mënul dem CEDEAO def fa loo xam ne li ci bu gravité bu am impact bu grave nii te sant ñu ko ay instruction la jot amul benn werante ay instruction la jot parce que ministre bi nit la ko logique te gëm nañ ñun ni pesé na gravité acte boobu moom ci boppam mënul posé boobu acte dañ ko sant mu dem def ko donc Sénégal bu fekkee ni ki ko jiite moom moo wax ñu def réserve yooyu parce que il faut ñu clarifier loolu il faut ñu xam qui a cette responsable man dama gëm ni moom la du ministre bi maintenant moom il faut qu'il réponde aux Sénégalais il faut ñu xam ndax moom président Macky moo wax ñu def réserve ci euh, règle communautaire boo xam ne bi dafay wax ni nañu limiter les mandats présidentiels à deux et puis constitution Sénégal daf ko wax naka la mun a ñu mën a violer constitution du Sénégal mu am règle bu mel noonu ñuy dem di def réserve CEDEAO ça n'a pas de sens lu dul ki ko wax dafa bëgg troisième. Ah, mais euh, incohérence bi mooy Macky Sall moom ci boppam. li taxoon mu teg fi référendum bi limité mandat yi ku ne def ñaari mandat dem si yoon presque loolu moo taxoon. waaw mais xëy na nag ñi koy comme ni may wax ñi ñi ñi lay ñi lay digal bu fekkee dañ lay dugal xëy na ñi koy conseil ñoo ko conseillé loolu. léegi démarche bi président jël bu dee arrêté wu ko ëllëgu Sénégal. ah ëllëg bu trouble lay doon ñaanuma yàlla euh, mu bañ a dégg li ko li askan wi di wax ñaanuma ko yàlla parce que bu ma sañoon moom dana fi génn génn bu honorable parce que teraanga bu nekk am na ko fii Sénégal. gaw ma ni gaw ma ni il a intérêt génn fi lu dul génn bu rafet bàyyi fi woy woo xam ne bi dana tax bu ëllëgee comme ni Abdou Diouf di def comme ni Senghor daan def mu mën a ñëw dugg Sénégal bu fekkee ni mi ngi newul Sénégal. waaw léegi maître euh, bala ñoo ñëw si njëg yi benn deux questions rek. waaw yow dafa mel ni sa invitation bi non non lii nii dafa xaw a actualité benn baal ma rek. léegi euh, dafa am lu Sénégalais yi ñu bari di wax xaw ma presse bi ñoom dañuy wax ne. Euh, préfet joxewul autorisation léeg-léeg ku jege ñoom dañ naan ñoom sàkkuñu autorisation mais dañoo demoon doon informé yow en tant que juriste lu si lu si am. waaw oh, mais loi bi dafa leer loi bi waxul autorisation loi bi dafa wax déclaration préalable maanaam da dama lay yëgal ni la dama bëgg a def manifestation bés sàngam waxtu sàngam ba sàngam place bii ba bii laa koy def yow nag autorité préfectorale bi nga xam ne yaa jot. déclaration préalable maanaam dama lay yëgal avant événement bi dama lay yëgal ak dama lay tàggu du benn mm-hmm. alors donc préfet bu fekkee xool na conditions yi gis ni conditions yi c'est pas réunies maanaam euh, li nga wax risque de trouble à l'ordre publique am na ay éléments yu koy firnde ni loolu mën na nekk wala awma moyen ci ay nit wala ay kii yoo éléments yoo xam ne dana doy pour encadrer sa manifestation boobu bu fekkee ni euh, loolu am na mën naa jël arrêté d'interdiction. d'accord. mais pas arrêté d'autorisation. d'accord. parce que moom du moom mooy autorisé loi moom moo autorisé constitution moom maye nit ñi ñu manifester donc bu la ko constitution maye loi may la ko préfet mënu la ko xañ lu dul dafay jël arrêté d'interdiction mais pas arrêté d'autorisation. léegi euh, ma soxna kan article quatre-vingt ñenn ñi jàpp nañu ne. Euh, bokkul ci liy soqali démocratie. waaw article quatre vingt euh, dañ ko war a xoolaat bu baax a baax parce que fourre-tout la moom la wax fourre-tout maanaam lu xew rek mën nga ko indi ci article quatre parce que article quatre vingt loolu euh, dafa yaatu li mu ëmb dafa yaatu. parce que dañuy wax les autres troubles à l'ordre public et cetera dafa bari loo xam mën nañ ko ci def donc Euh, ñoom li doon wax offense euh, au chef de l'État loolu euh, du du article quatre-vingt beneen article article quatre-vingt loolu la trouble à l'ordre public et cetera des choses comme ça donc loolu lu xew rek bu la neexee nga ni fee yi ça constitue des troubles nangam nangam voilà porte atteinte à l'ordre public dal di génne sa article quatre donc mën nañ ci ku nekk mën nañ arrêter n'importe qui sur la base de l' article 80 donc loolu tax article 80 dañ ko war a euh, supprimer xoolaat ko seet neneen nañ koy tëggee de façon plus précise. jërëjëf euh, ma soxna kan yow yaa jiite SOS consommateur ñu wax nag. ci lu waaw déedéet fàttewuma ko. <laughs> moo fi indi tey léegi maître maa ngi la léegi maître bala ñoo ñëw ci njëg yu yokk yi fan yi defoon ngeen yéen benn benn tournée doon implanté seeni kuréel n' est ce pas. Euh, tournée boobu lu ko taxoon a jóg. waaw tournée bi comme ni nga ko waxee ñaari yëf moo taxoon ñu jóg benn bi mooy dem installer Kaffrine région de Kaffrine suñu cellule régionale parce que comme cellule départementale yeeg communale yeeg yooyu yëpp euh, installé woon nañ ko euh, ñun dañu doon dem waa direction nationale bi léegi def délégation dem installer cellule régionale bu Kaffrine boobu mooy benn ñaareel bi mooy gis ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi ak euh, ñi nga xam ne ñoo yore ndox meeg euh, xorom seeg euh, suukar seeg diwlin jeeg santé bi éducation électricité yooyu yëpp dem seeti leen wax ak ñoom ci yenn problème yi fa am ñuy massaw askanu Kaffrine di féliciter suñu responsable yi ñu am foofu ba ñu installé seen bureau régional président bi mooy Dame Seck président Dame Seck jàmbaar la te Euh, social rek moo ko jógal askan wi rek moo ko jugal président euh, moom la am ñetti vice président yoo xam ni département bu nekk muy Koungheul muy euh, Kaffrine ci boppam muy Malem Odar yooyu yëpp dafa am seeni responsable muy Birkilane muy Birkilane donc ñeenti département yooyu bu ci nekk dafa am président boo xam ne bi départemental la léegi nag moo am président régional régional bi président mooy Dame Seck secrétaire général bi mooy docteur Mamadou Ndiaye kooku aussi jàmbaar la moom la ay jàmbaar rek ñoo nekk Kaffrine wax dëgg yàlla. mais mais mais maître euh, est-ce que tey fan ngeen toll ci seen implantation ci au niveau national ci Sénégal. waaw ñu ngi koy def ndànk-ndànk maanaam région bu pare rek ñu dem implanter cellule régionale ba ndax cellule de base yi moo xam cellule communale yi cellule de quartier yi ak cellule départementale yi yooyu. Euh, installation bi c'est interne ñoom bu ñu ko installé yónnee ñu seeni i bureau ak PV yeeg yooyu yëpp bu ñu xoolee ni jaar na yoon ñun dañ koy valider bind autorité yi wax leen leen ñii ñoo ñu fi représenté na ngeen leen di boole ci rencontre yi am réunion yi am ci affaire denrée yi ci affaire mbay mi ci affaire ki ainsi de suite te itam ñu ngi sant autorité yi foofu autorité wu région Kaffrine ñu ngi leen di sant bu baax ci seen ouverture seen yaatu euh, parce que recevoir nañ ñu déglu nañ ñu vraiment dalal nañu suñu xel te euh, d'accord nañu pour boole ñu parce que euh, loi bi euh, surtout loi bi mujj am la loi bi am au mois d'avril sur les prix et, et la protection des consommateurs dafa ñu boole dafa dafa wax comme ni principe directeur des Nations Unies wax fépp fu ñuy dogale pour askan wi ñun dañ fa war a fekki joxe ci suñu xalaat wax ci loolu lañ def ci ndox mi bind nañu ministre bi aussi wax ko loolu parce que euh, SEN'EAU dañu war a renouveler seen euh, euh, kii seen règlement de service et cetera yooyu yëpp mais monde rural bi jafe-jafe yu ñu am dafa jéggi dayoo. ci ndox voilà. ci ndox dafa garaaw a garaaw ba nga xam ne ndox mi ñu am sax amatuñ ko ci courant bi électrification rural ci njàng mi. ci njàng mi ci faju mi maa ngi ci doon ñëw ci paj mi. ci ci pêche beeg élevage bi maanaam foo laal rek day metti fépp problème dem nañ ci ay dëkk yoo xam ne école amu fa ay daara ñoo fa am daara yi boo gisee téere yi ñuy jànge bu ñu la ko wanee sa yaram day daw téere yi dafa dafa dafa nekk en morceau hmm. te pourtant boo ci ubbi boo ubbee benn page boo commencé benn surat benn xale bu góor wala benn xale bu jigéen ñoo ñoo ñooy eggali ay xale yu tuuti te jigéen ñoo ci ëpp ëpp ëpp doole ñoo ci ëpp euh, euh, ñoo ci gën a nekk waaw góor donc Euh, conditions yi ñuy vivre ndox mi li garaaw mooy dañu jëloon ndox mi ci asifor yi nga xam ni maanaam waa village yi waa gox yi ñoo doon gérer. ndox mi ndox mi ñoo ko doon gérer seen bopp. Mhm. xam ni bu fekkee ni am nañu excédent am nañ bénéfice ci li ñuy gérer danañ ci tabax case de santé wala ñu tabax ci benn classe. Mhm. wala ñu investir ko ci dëkk bi mhm. ñu remplacer ñu ne. dafa am ay problème mais problème fépp lay am problème même Ndakaaru dafa am ci gestion ndox beeg loolu dafa am ay problème ci yenn gox yi maanaam am na ñu fa lekk xaalis wala am na fa ay problème daal ñu nangu gestion boobu ci ci ñoom foor yi jox ko ñuy wooy ay fermier ay privé yoo xam ni ñoom bénéfice moo leen tax a jóg ñu diggee ni danañ indi ndox mu doy danañ indi ndox mu gën a baax danañ indi tarif yu gën a baax lenn amu ci li ñu digoon askan wi daara amu ci maanaam ndox mi doyatul la la la la yi daan am ca àll ba ba ñuy gérer seen bopp amatuñu ndox mu day noonu loolu lu garaaw a garaaw la amatuñu ndox mu day noonu euh, lu yàqu ci seen kii bi euh, kii du ko jënd pomp bu yàqoo wala leneen yàqu kenn du ko jënd compteur yi dañ leen koy jaay ndox mi dañ leen koy jaayee trois cent cinquante trois cent ba trois cent cinquante francs lañ leen di jaayee ndox bi loo xam ne lii ndakaaru kenn ñemewu ko jaayee ni ndox bi fii kenn ñemewu ko jaay fii ndakaaru par mille par par par kii par mètre cube. par mètre cube donc mu nekk affaire bu garaaw ak garaaw donc euh, nit ñi naanatuñu ba mu doy jur gi naanatuñu ba mu doy tool yi wax waxi noppi donc loolu ñun dañu wax ni état dafa war a dénoncer dafa war a dénoncer contrat bi mu signé ak fermier yooyu. nañ ko évol euh, évaluer no offort moom moo leen encadré maanaam dañ ko jox offort mm-hmm. état bi daf ko nangu ci ci population yi. Agifor jox ko offort. offort léegi délégué ko ay fermier mm. fermier yooyu defuñu ci dara dara dara lu jaar yoon. non seulement ndox mi dafa gën a cher mais doyul. Mm-hmm. kii facture dafa cher. compteurs yi sax dañ leen koy jaay te compteurs yi baaxul. donc euh, yëf yi métti na. nañu réformer réforme boobu. parce que bu fekkee état daf ci jubloon def lu baax li ñu fa def baaxul. d'accord nañ ko nañ ko réformer parce que population yi sonn nañ. d'accord léegi maître Massokhna Kane ñu wax ci euh, dund gi maanaam njëg yi dafa yokk trop trop trop trop ci Sénégal mais euh, kuréel gi di conseil national de la consommation est-ce que jàpp nga ne ñoo ngi def seen liggéey correctement. consommation conseil national lu la consommation pour ñu def seen liggéey il faut ñu dajale leen. pour ñu dajalee loi bu bees bi dafa wax ni conseil national de la consommation ñii ñoo ko composé dafa war a am décret boo xam ne moom mooy wax naka lay fonctionner décret boobu kenn jëlagu ko kenn jëlagul décret boobu ñaareel bi mooy euh, loi bi dafa wax ne euh, naka la ñuy defee prix yi loolu yooyu loi bi c'est entre en vigueur depuis le mois de juillet c'est entré en vigueur loi bi dafa prévoir que association ñi nga xam ñooy défendre consommateurs yi ministère du commerce dafa leen war a jox agrément pour que agrément boobu di leen permettre ñuy dem justice di défendre consommateur yi booba ba léegi a ngi nii ministre bi dafa lànk pour jox ñu suñu agrément yooyu ndax nee na fi mu ko wekk mooy ñun dañu ko war a jox statut yu bees yoo xam ni day méngoog benn statut modèle boo xam moom defaragu ko moom defaragul statut modèle boobu ba pare di ñu laaj ñun ñu jox ko ay statut yu bees maanaam ñu bàyyi suñu statut yi nga xam ne ci lañ doon fonctionner depuis vingt ans trente ans def statut yu bees est-ce que loolu ministre bi am na droit amul droit maanaam loi bu bees bi am xam ni c'est applicable à compter de juillet passé loi boobu dafay régler avenir futur lay régler maanaam li ñëwagul lay waaye la passé loi ba mënu ko régler parce que loi du rétroagir li ñuy wax la rétroactivité des lois loi mënul association yi nga xam ne newoon nañ fi depuis vingt ans ou plus ñu ne leen léegi seen statut yooyu da ngeen koy bàyyi foog ngeen jox ñu statut yoo xam ne yi ñun ñoo leen di wax modèle bi te sax modèle bi ñun tëggaguñ ko wala bu ñu ko tëggee association yi yëgaguñ ko ay caaxaan la tere ñu ñu def suñu liggéey tere ñu ñu défendre population yi nañu wax nañu wax ministre du commerce parce que ñun dañu doon sax boycotter rencontre yi muy woote yëpp dañ ko doon boycotter tant que joxuñu suñu agrément depuis plus de vingt ans association yi ñu ngi daw di xeex pour mën a exercer li ñuy wax l'action collective maanaam xeexal askan wi ci kanamu justice ba bi yoon loi bi jox ñu ko au mois d'avril au mois de juillet loi bi ñu publie mu entrer en vigueur ba léegi ministre bi nanguwuñu jox agrément yi. te wekk ko fenn. fudul mauvaise interprétation des textes. d' accord léegi euh, maître Massokhna Kane euh, njëgu yokk yi diwlin gi yokk na suukar si ceeb bi euh, ciment bi fer bi meew mi presque lépp yokk lu ci sa xalaat. waaw li ci sama xalaat mooy ministère bi moo tële. ministère du commerce moo tële pour def liggéeyam. ndax njëg dafa am ñetti façon njëg ñetti catégorie ci la. mais ci ministre bi la bien sûr moom moo deful liggéeyam maanaam ay service am defuñu liggéeyam te li tax mooy joxuñu ko jumtuwaay yu tax mu mën a def liggéeyam joxuñu ko ay moyens ay nit yu doy joxuñu ko ko joxuñu ko ay moyens yu doy bu yàggul rek la ñuy jëndal quelque oto mais joxuñu leen parce que ministère du commerce. xam ni yaa yor commerce yor production euh, yor consommation euh, li nit ñi lekk yépp yow yaa ko war a kii prix yaa ko war a toppatoo yaa war a contrôler kii nangam nang mais Côte d'Ivoire il y a quatre directions il y a il de quatre directions Sénégal ñaari direction moo fi am ministère du commerce euh, service yi am foofu ak France boo leen comparé ak Sénégal day mel ni yàlla ak yàlla joxuñu leen moyen. looloo tax mais la bi. non solution bi pour njëg yi wàññi d'abord ministre ba fa nekk wax dëgg yàlla wane na ak télé goo xam ne gi ñëpp a koy dénoncé wax dëgg yàlla li ñu ko jox daf ko ëpp. d'abord d'abord moom moom joxuñu ko moyen mais même le peu que euh, ñu ko jox mu ciy liggéey wax dëgg yàlla liggéey bi doxul nañ ko wutal feneen nañ ko jox wóor na ma ni am na liggéey yu bari yu mën def. mais da nga koy da nga koy xool te am na ay jàmbaar yu nekk foofu ci ministère ba. yaa de a des yu nekk foofu ci ministère ba ay jàmbaar lañu duma ci tudd ay tour mais ñoom xam nañ ni ñun nawloo nañu seen liggéey malgré que état bi joxu leen moyens yu doy pour ñu liggéey ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def li ñu mën mais li ñu mën dafa barewul mm-hmm. parce que njëg yi dañ ko war a contrôler njëg dafa am ñetti njëg dafa am li ñuy wax vente libre mooy yenn produit yi vente libre la lu neex waaye jaayee te dafa am compétition am prix yoo xam autoritaire yoo xam ne état moo koy fixé d'office mooy njëgu transport mooy njëgu ciment moo moo mooy mooy njëgu yenn yenn kii garab yi ak yooyu yooyu njëgu courant yooyu yooyu état moo koy fixé d'office nit ñi war ko appliquer am njëg yoo xam ne yi euh, producteur bi mooy li ñuy wax prix homologué prix homologué farine bi ci la bokk diwlin bi ci la bokk ceeb bi ci la bokk ak euh, ciment beeg ñoom seen yooyu Euh, pour état fixé ko producteur bi day ñëw indil ko li ñuy wax structure des prix maanaam day ñëw ni ko man kat lii laa jënde samay frais de transport lii la samay charge lii la électricité nangam nangam c'est valable pour mburu beeg yëpp lii la sama marge bénéficiaire lii la donc lii laa bëgg a li mu bëgg a jaayee bu ko ministère bi xayma euh, xool ko jàngat ko xool ko danañ ko xool segg ko ba xool woo conseil national de la consommation ñoom itam ñu jox seen avis te ñun ñi ñëpp ci lañ bokk yéen journalistes yi ci ngeen bokk bu ko defee bu joxee avis ba pare ministre bi jël arrêté d'homologation jël arrêté boo xam ne daf naan ah njëg bi homologué naa ko mbaa mu ne man d'accorduma ci lii nga fixé delloo la sa dossier nga dem seetiwaat ko mais ministre bi même les prix homologués ak yi prix yi nga xam ne état moo ko fixé ministre bi amul ay moyens pour contrôler contrôler njaay moomu ñuy jaay ci mbedd mi ci produit yooyu de sorte que nit ñi lu leen neex la ñuy jaayee lu leen neex la def mais est-ce que du état dafa lajj ci côté boobu ba jéematu ko sax lijjanti jéematu ko lijjanti parce que ñoom boo waxee ñoom wax dëgg yàlla ñoom dañuy metti lu nekk ci marché bi mais amuñ ci pexe ñoom seen bopp incompétent waa ministère seen bopp ah. am na ay jàmbaar yu nekk foofu mais dañ lay wax carrément lii ñoom mënuñ ci dara mënuñu ko. mais léegi amuñu moyen pour contrôler góorlu bi nag moo nar a sonn. góorgóorlu bi nag moo ci dee lu neex waay def lu neex waay jaayee te commerçant ñoom seen bénéfice rek la ñu xool wax dëgg yàlla xoolu ñu li metti ci askan wi bu ñuy discours nag dañ na naan ñun ñu ngi xool ñu ngi xool euh, askan wi léeg-léeg nag ñu wàññi ay ay ay fisti nag ay ñaari dërëm ci yenn njëg yi euh, te loola lu mel ni ay UNACOIS wala ay kii ak yooyu. ñoom ñooy waxanteeg seen gaay yi te dañ leen di yedd ni leen euh, sedd leen ci askan wi wàññi leen seen marge. waaw mais mais ñooñu lu leen neex la état bi dafay bi faral di wax ne fi nee na ñoom guerre bi la. guerre bi lay la parce que boo jëlee affaire essence super bi dañ la wax ni guerre en Ukraine bi ak cours du pétrole bi moo tax ñu yokk ko cent quinze francs mais loolu dëgg la en partie maanaam ñoom dañu wax ba pare dugal seen bopp ci wax ci parce que directeur de cabinet ministre des pétroles dafa wax mu ne cours mondiaux yi ak guerre bi ba pare ci biir waxam xam naa dafa làmmiñam daf ko kii mu ne ah état bi dafa soxla ay tax c'est normal état daa soxla ay taxes ndax BRT baa ngi fi euh, TER baa ngi fi euh, kii baa ngi fi euh, hydraulique du moins électrification rurale loolu yëpp dafa laaj ay investissement donc loolu tax état bi lever ay tax loolu loolu loolu feeñalu seen bopp. maanaam cent quinze francs yi nga xam ne moom lañu yokk ci super bi boo ko doon analyser cours mondiaux xëy na dana ci doon ñaari dërëm wala ñetti dërëm ci litre bu nekk. guerre bi xëy na moom it bu ci yokkoo xëy na dana yokku euh, comme yeneen dëkk Mali yi euh, Côte d'Ivoire ak yooyu xëy na dana yokku ay vingt cinq francs trente francs. mais cent quinze francs te loolu dañ ko def ci super bi mais dafa dafa am ouverture bu mu jox boppam daf ni pour le moment foofu la yem mais dàquñu ni dana dem ci yeneen kii donc loolu da doon ubbil boppam bunt boo xam ne sénégalais yi bu ñu d'accordee ci hausse bi te ñun SOS consommateur wax nañ sénégalais yi nañu bañ loolu parce que ay taxes la ñu lever pour def ko ci ay yeneen yeneen i kii def ko ci ay stade wala feneen fu ñu ko def ñoo xam mais ay taxes la ñuy lever te taxe kenn du ko lever noonu taxe ñëpp war a supporter taxe yi mais du ñu seet rek ñi nga xam ñooy consommer super rek teg leen ko bu ëllëgee ñu yokk ci gasoil gasoil bi dañ ko ci ñemewuloon yokk parce que xam nañ bu ñu ko ci yokkoon d'accord dina leen indil xaalis bu bare ci ay taxes mais bu boobaa bu boobaa askan wi ñooy jóg parce que boobaa transport dana yokk lépp dana yokk déjà lépp yokk na te yokkuñu gasoil bi et euh, li ci nekk mooy ñoom euh, wax dëgg yàlla jubadi moo ci nekk. parce que nit lu métti métti da wax nit ki dëgg gi te suñu njiit yi dañu tamal lu ñuy wax dëgg ci affaire prix ak affaire consommation yàgg na ça fait plus de vingt ans jëlal électricité électricité ñoom dañu waxoon ni électricité c'est l'un des plus chers au monde bi ñuy teg plan yeesal di ci def ay centaines de milliards yoo xam ne ci impôts yi lañ ko jëlee ay centaines de milliards sans compter financement extérieur yi dañ ñu woon ak plan yeesal bu ñu demee ba deux mille vingt danañ jëndee kilowatt danañ ko jëndee entre soixante et quatre-vingts francs ñoom ñoo ko bind ñoo ko wax ci seen i documents waaw du ñu ngi deux mille vingt est-ce que courant bi wàññeeku na wàññeekuwul mm-hmm. malgré ko courant quand même euh, délestage yi nam daan bare wàññeetu mm-hmm. wax dëgg yàlla def nañu ay jéego foofu te ñun félicité nañ leen parce que bu ñu gisee lu baax dañ naan lii lu baax la mais terewul ñu wax leen aussi li nga xam ne. moom la gis ni jaaduwul parce que courant bi il est vrai que courant gën na bare il est vrai que euh, gestion bi euh, wax dëgg yàlla mën nañ ni tane na parce que équipe ba fa nekk wax dëgg yàlla gëm nañ ni ñoom ñu ngi liggéey wante mhm. wante fi ñu d'accordul mooy Senelec continuer di fonctionner ni muy fonctionner léegi euh, une minute rek euh, waxtu léegi dama jeex léegi Sen'Eau gestion Sen'Eau lan moo ci sa gis-gis gestion Sen'Eau lu ñu war a seetaat la lu garaaw la fi mu nekk actuellement am na ñaari association suñu bos ak beneen euh, Ascosen yu demoon Suisse fekki contre expertise bi nga xam ni moo amoon ci compteur Itron yi xam nga dañ fi waxoon ni compteur Itron yi am na mille compteurs yoo xam baaxul conteur jel yi baax na conteur Itron baaxul ba ko euh, service état yi waxee waa Sen'Eau dañ ko weddi dañ ko contesté ni expertise bi baaxul wante la ca baax jël nañ ko mooy compteur jël yi ne nañ nangu nañu loolu mais résultat itron yi nanguñ ko ñu demander contre expertise ñu dem Suisse pour def contre expertise waaw mais li ci ñuul déjà déjà xam nga ñu bari seen facture yokk na anormal ñooñu boo seetoon seen compteur xëy na compteur itron moo fa nekk gëm nañ compteur itron moo fa nekk loolu doyul euh, ba ñuy dem Suisse au lieu seen au dem ña fekkee woon expertise ba dem fekkewaat échantillon yi ñu euh, euh, jëloon def ci expertise bi ñu yóbbu ko Suisse dañu jël rek yeneen échantillon ay échantillon ca yooya yóbbu maanaam bu doon téeméer ñu jël fukk lañ ci jël yóbbu et itam seen o ma nga xam ne moo demandé contre expertise ba moom new foo xam nga ku mu yebal mm-hmm. waa Suez la ñu yebal waa Suez ka defar compteur ba Itron ñoom ñu nga fa ñun association de consommateurs ñu nga fa état du Sénégal mu nga fa mais seen o ci boppam au lieu mu ne au lieu muy yónnee techniciens yi nga xam ñoo fekke woon expertise bi dafa yónnee waa Suez la yónnee ñun ñu contester présence su Suez xam nga lu ñu def ñoom ca saasa la ñu yónnee benn procuration pour jox siège procuration parce que ñun SOS consommateur dañu opposé woon ci présence su Suez ca expertise ba ca contre expertise ba directrice bi def ca saase benn procuration yónnee ko expert ba waa Suisse pour woon leen ni leen Suez ñoo leen di euh, représenté xam nga loolu jalgati mënu ko passé ñu ngi koy dénoncé te itam affaire compteur boobu danañ ci waxat parce que li yokk ndox bi ci la bokk. d'accord jërëjëf euh, maître ñu la sant di la gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, c'est dommage parce que émission bi dafa mel ni invité politique nga am alors que président consommateur yi nga nga invité woon beneen yoon nag euh, Euh, sa question politique yooyu dañ koy bàyyi ak euh, ñi nga xam ñooy def politique. parce que mën nga ci am invité yu bare bare. jërëjëf jërëjëf euh, maître Massokhna Kane mbokk yi moom mooy njiitul SOS consommateur moom lañu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck.